des dominants. exactement donc euh, loolu askan bi moo ko alors ma di la jaajëfal bu baax a baax Papa Sane xam naa rek tout à l'heure brièvement dinañ dikkaat ci li nga xamante ne mooy euh, le le cas du BTP au Sénégal mais c'est terrible c'est eux qui loolu bàyyi ba ba Ahmed ñëw ma bàyyi ba Ahmed ñëw waaw ci lay gën a xum waaw ndax bâtiment yi moom dëgg yàlla nit foofu lay gën a parce que dañu dàq consortium d'entreprise on a vu presque deux cents personnes yu ñu nar voilà liquider crise mais incroyable parce que simplement état bi benn joxatu leen ay marché ñaareel ba amee na leen xaalis on se pose la question. état boobu nga xamante ni tey wax nañ ñu pooru Ndayane bële jaay na ko Dubai port world à mille milliards. loolu moom commentaire Ahmed dina si baax trop ndaxte moom moom wax dëgg yàlla il tranche bien on va dire ma di nuyuwaat rek Luisa elle est magnifique aujourd'hui franchement mm-hmm. euh, merci pour les autres jours elle me dira mais machallah Laurent je te vas ravir merci beaucoup c'est gentil nice. Oui, je vais sourire, euh, je vais sourire. <laughs> Et en plus, elle est toute sage. Oui, elle est ah, comme ça, de nature. Hein. Hey, eh, mais aujourd'hui, je vous sens pas, j'ai envie, j'ai besoin de pêche sur le plateau. C'est quoi le problème Non, pas ça, moo ñëw rek indi ñu ay problème. C'est que dama bëggoon wax nañ ko jox nguur gi ñu essayé parce que li muy kaas bëri na man dama sonn daal. saa sal man wax dëgg yàlla duñ def noonu tamit est-ce que duñ la def ministre conseiller tamit. suba teel suba teel. <laughs> non nañ non dëggantaan nañ ko jox nguur gi ndax paasan. waaw sa liste fees na. waaw doy na waar mag yi doon la ñu wax ni bu doon mën a bu doon mën a boo dégg bàyyi ba mu doon ñëw a ñu gis loolu de dëgg la waaw <laughs> mën na ko def de bu boobaa jël ma sa assistant rek da ngay def ay cours ah. da ngay def ay cours damay def ay cours wolof kay. ah waaw boobu di xóot na de mu laajte de. bon nee naa leen je vais vous surprendre. ah man je suis passionnée. ah waaw d'accord on attend. Fassane ma di la jaajëfal bu baax a baax en tout cas reste en notre compagnie l'actualité touche à tous les domaines donc étant donné touche à toutes les rubriques ci noonu la ñuy daal di jublu rek ci beauté ah on va détendre un peu l'atmosphère en compagnie de Luisa Djandji et c'est tout de suite. alors Luisa Seyfar baax na rafet na. merci waaw maa fi jaar. comme ni ñuy taaralee saa su ne rek <laughs> mbétetuñu suñu taar. waaw moom ak suñu taar dañuy déggoo nag. dañuy mën a déggoo dañoo ñoom ñaar sax. juste. Ah. ah oui dinaa ko seeti. voilà donc madame Diatta <laughs> qu'on salue au passage yaa jëf ci bopp bi euh, yaa fi jaar nii gis nga gis ngeen ku bëgg yu baax yi tamit rek moom ngay contacter numéro am dina affiché wu léegi xam naa maam Sidi dina ma si jàppale tout ci rek waaye ñu xuus ci ki nga xamante ne mooy Luisa Diandi tey nag dañ ñuy waxtaanee li nga xamante ne mooy CERN ak a sonal ñu bëri. waaw sonal ñu bëri gis ngeen free ngeen dañoo dugg ci rubrique ba tey rek ngeen free. gis nga ah surtout que tey surtout que li may wax dina ak seen <laughs> alors tey dinañu waxtaan si li nga xamante ne mooy poche ak anti ak cerne euh, autant pour moi euh, léegi nag dinañ dem ñu xool tuuti lan mooy euh, lan mooy poche alors poche soo ko gis poche ak cerne du benn. alors parce que cerne mooy euh, affaisse affaissement wu tissu bi la tissu c'est-à-dire que bi buy bàyyi mooy indi amas de de de yoo xamante ne day collé juste ci suufu bët yi mm. alors poche nag mooy comme euh, comme ma jël exemple ci nanaa li mu am. looy wax kay ju boo jëlu exemple ci man sax ma mere la daal. tey lu fi wax ci wàllu gii nii déjà yow dama laa meexee parce que da nga def reportage jéggi ma dem jëli ji keneen te man maa ngi ci biir kër gi. daa esthétique la la mën a defal maquillage la rek. injection non pourtant moom mosam du métti dinaa expliquer lu tax du metti parce que moom mu ngi doon joxe dinaa la bàyyi sax nga wax nekk li sa bos en fait euh, ni mu boo yeewoo naka lay def ak après comment ça va se passer mais juste pour expliquer que ne poche yi c'est un amas de de graisse en fait c'est-à-dire que bu guddee lèvre bi nga xamante ne moom mooy transporter euh, déchets euh, déchets yi. c'est-à-dire que la circulation lymphatique moo am problème loolu moo tax euh, boo yeewoo nga gis ay poches en fait ama soit c'est des poches d'eau wala c'est des comme li ma rek euh, c'est des ama graisseux mais am na ñoo xamante ne du des parce que au fil de euh, de la journée am na ñoo xamante ne bu ñu demee ba matinée bi dootuñu ko gisati. mais am na ñoo xamante ne day des alors loolu c'est des problèmes plus graves soit c'est des problèmes de rétention d'eau ou euh, voilà des problèmes wax naa ko léegi de circulation euh, de dysfonctionnement thyroïde beneen bi mooy euh, prise peut-être de médicaments nga am jàngoro ngay jël médicaments yoo xamante ne dafay effet secondaire sinon am na aussi euh, prise excessive d'alcool ak tamit euh, hygiène de vie boo xamante ne euh, baaxul c'est-à-dire que peut-être que dangay ngay ngay génn tout le temps doo nelaw lu bëri am na ñoo am na ñoo xamante ne aussi dañoo am problème pour nelaw ça aussi c'est vraiment c'est un réel problème léegi loolu dina feeñ. bi yaay wane sa loxo de <laughs> yëkkati. léegi loolu lu tax Cerno ankay dama seen pourtant seen na seen différence bi rek mooy am na ñoo xamante ne seen contour des yeux day lëndëm hmm. day lëndëm mais loolu tamit ça peut être un problème génétique mais euh, ñàkk nelaw le plus souvent seen ñu ngi koy ràññee si ñàkk nelaw alors beneen bi nga xamante ne mooy poche bi naanaa am euh, loolu c'est c'est c'est vraiment euh, hormis le fait que moom du nelaw lu bëri parce que mu ngi ko doon wax sànq mais c'est vraiment un dysfonctionnement si circulation sanguine bi alors pour les solutions comme li ma koy wax ci rayon cosmétique yi poche ak ak cerne ñoom ñoo bokk

Euh, c'est-à-dire que ñoo bokk produit mais seulement euh, solution yi peut-être traitement bi moo dul moo mais sinon di nga dem tout le temps cosmétique ñu jox la ay produits yoo c'est pour des poches c'est pour des anti c'est pour des cernes euh, sinon dina ci am des remèdes yoo xamante ne je conseille les gens de plus et puis ñu indiwaat ko loolu dina permettre parce que c'est des trucs yoo xam que tu trouves tous les jours univers pour wan leen un peu comment euh, mais fàtte naa ko ci biir mais c'est pas grave. <laughs> si ah? ah est-ce que Absa du la ko indil. waaw war na ma ko indil pour ma pour ma wan leen pour ko ah. tuuti. waaw mi ngi koy indi léegi. waaw sinon euh, euh, sinon euh, bi am aussi importance parce que tamit poche comme je dis un inconfort esthétique parce que tamit. boo yeewoo le matin tu dois être en forme. après lépp lu nekk si kanamu surtout jigéen lu kanamu jigéen mën na la perturber en fait. parce que tu tout magnifique. oh my God. elle est magnifique. oh. c'est ça sur l'hôtel. non la réglé ah. mais mais j'adore l'ambiance de ce hôtel. c'est sànq. ah de yaa fi waxoon sànq dañoo loo de. da ngeen loo woon sànq moo tax ma leen di. seen kaasu café. ah. ah kon nag eh, mais dinaa ko jëli léegi am problème bu ma naa leen bàyyi ngeen commentaire na jëli ko léegi alors je disais que euh, li nga xamante ne nana mooy tey ji moo lay permettre que nga lutter contre c'est-à-dire c'est le froid tu prends une cuillère tu mets ça au au au frais ci congélateur pendant des heures wala des jours boo ko dindee ci seddaay bi nga teg ko tuuti mu posé wu après nga jël cuillère bi dinaa ko jëli léegi nga teg ko si tu t'étales c'est-à-dire que c'est comme le euh, euh cest dire que booy def ay soin il faut vraiment être dans un esprit de relâchement c'est vrai loolu moo lay permettre nga concentré wu ci li ngay def et puis tamit sa mouvement yi sa corps beeg sa lépp fekk si la alors beneen bi mooy des glaçons toujours le froid alors xam nañ ne glace boo ko tey day sedd sa loxo et que day mel ni luy rey peau bi mhm. il faut prendre un mouchoir en coton nga jël ko enveloppé ko nga def alo vera l'aloe vera est très le gel d'aloe vera. ah oui très très très très bon. Ah, c'est vraiment un élixir de beauté. le le le gel d'aloe vera. waaw c'est-à-dire que irritation <laughs> bouton nga jël ko rek dagg ko noonu rek nga def ko mm-hmm. euh, loolu c'est c'est vraiment c'est c'est c'est efficace c'est efficace c'est vraiment efficace mais pour on tout. retrouve souvent le glaçon ci euh, boo amee enflement ouais. est-ce que donc les cernes ou les poches devraient être considérées comme des enflements oui c'est ça c'est comme parce que nana mi ngi expliquer que ne au cours de la journée moom yosam day dem donc du coup c'est un amas graisseux mën na nekk des mm. poches d'eau donc du coup euh, glaçon bi boo ko tegee noonu peut-être mën na agresser sa peau donc du coup faut prendre juste un mouchoir enveloppe développé nga def un peu gel pour pas que pour juste am euh, benn en benn barrage en fait benn voile buy séparer peau bi ak glaçon bi ak gel bi gel bi day mel ni comme si day lifté en fait. donc du coup ça va te permettre affaire bi rees mais ça c'est un travail c'est vraiment un truc continu boo xam ne da nga koy def tout le temps alors beneen bi mooy les sachets de thé les sachets de thé boo defee infusion ba pare il faut mettre ça au frais quand tu mets ça au frais après nga teg ko ci sa poche sa euh, sa bëti après dinaa ko indi pour wan leen ko alors sinon quelque chose d'hyper important que les gens ne font pas, moi aussi je le fais pas. C'est le yoga facial, mmh. c'est-à-dire la le euh, comment ça gymnastique faciale en fait. One maga, one ma. Alors <laughs> gymnastique faciale c'est c'est bon c'est bon parce que euh, ça permet di nga gis des fois bu ñu maquiller nit fan mooy rides yi mooy njëkk a feeñ côté yi mooy njëkk a feeñ am na aussi li ñuy li ñuy wooyee nu euh, mu tuddati ride du lion je vous pose la question. c'est quoi féroce na de xaw ma ko waaye war naa féroce lion moom la am. ay ah, sama xarit bi ndéyge ndéyge fecc kat moom la am rite du lion. yow doo bàyyi ba ñu di wax lan la ba pare. <laughs> ah mooy rite bu rëy bi xanaa <laughs> rite bi gën a affiché wu. mooy ndéyge ndéyge fecc kat den nelaw ndey nelawal. ride du lion nga am alors ride du c'est quand tu fais des grimaces en fait euh, ride du lion mooy nekk juste au front fii. lii boobu dafa du lion mooy mooy yi nekk juste nii mooy yi nga xam ne bu ñu maquillé ñun bu ñu defee pour fond de teint pour moom mooy njëkk feeñ en fait di craquelé alors euh, loolu euh, c'est-à-dire que boo ko gisee c'est parce que la peau perd son élasticité. alors te loolu pour nga permettre pour retarder en fait ça c'est vraiment soit <laughs> sonn ride et tout lu koy defee ak vieillissement ça dina am yoo xamante ne dina am ñi nga xamante ne dañu am problème de nerf parce que am na euh, benn phénomène boo xam ne dafa am am na nit ñoo xamante ne dañuy nekk en état euh, di dajeek ay stress. ak ay problème des fois bu ñuy accoucher risque bi ñuy am pour seen côté seen para seen côté bi paralysé parce que dama xam ay nit ci ko dal euh, yu mu dal léegi loolu gymnastique faciale da lay permettre tey jii que. c'est-à-dire que ñun suñu kanam y a près de cinquante muscles en fait sur le visage léegi muscles yooyu il faut tout le temps les détendre léegi gymnastique faciale c'est vrai que tubaab bi dañ naan <laughs> que ci mag yi la baax mais baax na aussi si ñun parce que dañuy anticiper en fait élasticité peau bi alors il y a chaque jour cinq minutes il faut prendre cinq xam naa ne moom di nga ci ay torop. cinq <laughs> minutes chaque matin euh, si sa si sa si sa sa oto. wala nu mu tudd ci euh, si si euh, salle de bain waaw foo xamante ne da ngay. concentré wu relax. il faut toujours c'est comme comme lu ñuy wax yoga facial la donc il faut toujours. être dans un esprit de man de manière gi rek laa bëgg a xam. alors. pour pour nga def ko nag. il faut jëlal bigi cobaye bigi nekkal cobaye. il faut nga échauffer sa sa sa visage mën nga jël lu fluide. gi ah, alors mën nga jël lu fluide nga diw ko déjà ñun amuñu ko mais dañuy commencer par la lettre XU. XU. Allez, XU. XU. Ah oui, c'est vrai que ça ouais. fait un, un vrai travail. Oui, oui. Bah, x u x u matinale x u x u pendant trente secondes alors que c'est bon sinon c'est prendre euh, euh, les doigts nga jëlee juste euh, comme ça sur le on est maquillé. sous mais les yeux bi gi defal. waa si si si si si bakkañ bi nii. après tu tires en extérieur tu tires en extérieur déedéet ñu bul agressif nanka rek ça va te permettre aussi euh, Nana ak sa sermi juste comme faire comme de ça. de retrouver la peau. voilà exactement tu tires tu tires tu tires tu tires. mais concombre aussi dama doon dégg da cee baax. voilà concombre aussi baax na si. concombre loolu yëpp c'est des c'est des recettes de mamie. et ça va ça aide parce que loolu moo gën parce que je veux dire c'est naturel. Et c'est vrai que ça relaxe, hein? Oui, ça relaxe. Oh là là. Mais sérieux là. machallah faut dormir alors. <laughs> eh bàyyi ma man ma yéen. sinon bi gi mën nga jël sa loxo bi nga def trompette ah nga mel ni kuy siffler. génnal ci yooyu. <laughs> macha allah macha allah lii moom lii moom mat naa xam mat naa saytu mat naa uti ndaxte c'est important des fois da ngay boo mel ni pas Assane nii da ngay prolonger ndax liggéey bu bëri mm-hmm. banga nga xam ni da ngay obligé ñëw le matin mm-hmm. nekk sur le plateau cerni ça peut être interprété autrement. dëgg la moom bi nga wax dëgg la dëgg la ride du lion ride du lion la am. dëgg la li muy wax ni c'est tellement important ba sànq maa ngi leen ko doon expliquer nee leen des fois nga lire benn commentaire nit di la wax nee leen nii yow xanaa ci boîte dafa naan fekk aha yow de tu sors pratiquement par exemple sama cas man bu ma demee ba ay côté 14 heures bu naaj bi génnee dootoo ma gis ak seex na mais ñun il faut savoir qu'on se réveille à heures du matin ñëw fii nii c'est pas trop évident ak heure tëdd beeg yooyu moo tax ah, des fois da yeew ak ay seex na am na ñoo xam ne aussi lu important la c'est génétique am na ñoo xam ne dañ koy doon am na ñoo xam seen papa yi seen yaay dañuy am seex na wala des, okay. des pour pour camoufler hein. c'est oui. là où est important. la maquillage le ah. mais du ñëpp ko mën am na ñoo xam ne ne bu ñu lay maquiller il faut euh, dañuy dañuy appliquer tellement ci cernes yi dafay gën a génn comme par exemple moom mosut ma maquiller Luisa mais jour boobu bien vrai que 5 heures du matin laa yeew mais kenn gisul sama cerne yi. j'étais toute belle dina si dikkat ak ko ci xaar. Luisa euh, euh, Asta moo fi aw te macha allah elle s'est bien débrouillée moom. mais mais gis nga dañuy